ak contentement chers internautes Dak Médina TV di ànd yéen seen nouveau numéro de Dak Culture comme ni ma leen ko waxee woon nag Dak Culture tey ñu am ak contentement recevoir artiste bu mag koo xamante ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal a ah, de son vrai nom nag Moussa Traoré comme nee nañ tungu ne du teew ñuy nataal dañ koy bàyyi moo ngi nii toog mu nuyoon teg suñu mbokk internet yi bu ko defee ñu jàll ci waxtaan bi Moussa Traoré maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoon teg suñu mbokk internet yi waaw salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di nuyu waa Dak Médina TV macha allah kontaan naa trop ci ñu seet si ma leen seet nii et di nuyu diaspora bi ndax Dak Médina TV mi ngi ci diaspora bi ah gars di ko xool bu baax a baax waaw da nga tungu ne du teew ñu nataal tungu ne bee ngi nii nag maa ngi nii quoi vraiment kontaan ci jàkkaarloo bi ak Fatima waa rabi sant. ah animatrice quoi waaw di kontaan ci gars ya ah. waaw fii moom sama kër la quoi Médina la juddoo j'aime la Médina kon Dak TV maa ngi ci yéen. Médina ko juddoo moo tax ñu jël suñu choix porté ko ci yow. waaw gis nga dëgg nekk artiste boo xamante ne macha allah ku am talent lool mais Moussa Traoré balaa ñoo sori euh, ndax dañ ne loo xam Samba Samba gën laa xam boppam suñ la doon laaj tey kan mooy Moussa Traoré lan nga ñu mën a wax ci Moussa Traoré. waaw kuy Moussa Traoré benn jeune la bu juddoo Médina juddoo Abass Euh, dëkk Médina 27 angle 20. ok waaw diggante rue 25 angle 20 27 angle 20. ok ma dëkk foofu nag nekk benn xale bu ndaw juddoo fii comme ñëpp ah. waa nekk booy Médina rek. Mhm. waaw man comme daay ma Moussa Traoré. rek nga mën a wax daal. non non non non yow laay déglu nag nga wax ma comme mais li fi ma juddoo daal laa la mën a wax. ok yaa. ba baax na ñu gis la nag ngay def musique. yaa am talent lool. di tëgg sabar di taasu di way di fecc <laughs> loolu fan la jógee da nga juddu fekk ci sa membre famille am kenn ku ko ci def wala yéen seen famille da ngeen koy pratiquer ba tax nga jékki-jékki rek mooy loolu. non malheureusement judduwuma fekk suma famille parce que man bokkuma ci famille griot. ok euh, suma papa bambara la malien la suma yaay mooy sénégalaise. nekk dëkk nekk olof nekk lébu nag. Oh. waaw mais euh, man lenn moo tax ma dugg mooy tëgg sabar. bëgg ko di fecc mais Franc Mbaye Dieye Faye waaw Mbaye Dieye Faye dama ko yàgg Franc mom la gis ma nek xalé muy tëgg yusnu quoi ma koy gis quoi loolu moo duggal ci musique bi ci métier bi quoi ma Franc ko rek top ko euh l'âge de 12 ans parce que 89 la commencé musique 89 mais ma ay 7 ans 8 ans bo may xol Mbaye Dieye Faye xam nga mhm. waaw Franc ko quoi mhm. loolu moom duggal ci bagages yi quoi. macha allah am na solo torop ñu ràññee woon la nag ci benn groupe bu tudd Lemzo Jamono. Mhm. defe naa avant Jamono bon jaar naa fu bëri ah. ndax ma cheminer quoi. parce que avant Lemzo Jamono. Mhm. am na benn orchestre bu tuddoon xibaar. Mhm. waa ñu ngi doon répété répété Isaac Foster. ok euh, bi may répété foofu boobu maa ne xale bu ndaw ak benn groupe bu tudd Chorus. mais après ma jógee foofu ci laa dem conservatoire pour jàng solfège jàng musique ma nekk conservatoire dugg orchestre national jamono yooyu Pape sekk Dagana moo mi ngi fa woon Mor Dior dama sob nag dama yàgg sob <laughs> jamono yooyu xam nga waaw ma dugg foofu jaa orchestre national ba yàlla def euh, vraiment ma ñëw Lemzo jamono mais avant Lemzo jamono sax maa ngi doon ànd ak El Hadj Ndiaye Sigui te ma woowee bonjour comment ça waaw moom laa àndaloon doon def ay tournée partout dans le monde ah. Mm. waaw def naa benn cheminée bu garaaw nag bu boo xam ne xam nga. après ci laa ñëw Lemzo jamono. parce que Lemzo jamono maa ngi fa dugg euh, fin 91. Mm. début 92 fin amoon na benn euh, concert bu amoon euh, stade Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. bu ñu doon sargale Nelson Mandela. Mm-hmm. boobu Kidala mi ngi génnee Balaye Sebouré. kaset boobu célibataire man maa ko tëgg morceau bi ñaan célibataire maa ko tëgg waaw léegi nag euh, concert boobu man maa doon jouer Kinéram boobu maa nekk xale bu ndaw ñu tegal ma ay ay fly case mooy ñuy dugal mhm. ay clavier affaire yooyu ma taxaw ci ni pour jot sabar yi boobu maa tëggal Kinéram mhm. foofu la ma leen fay gisee mhm. concert boobu la ma leen fay gisee yónni salaam Diallo nekk booy bi laa soxla après Salam ñëw wax ma ma ne ko amul problème parce que moment boobu may dëkk suma kër suma suñu kër fii nekk sama maam. Mhm. di fanaan ak sama maam. Mhm. <laughs> di fanaan ak sama maam. Euh, ndeysaan damay fàttaliku su ma masaan jugee dem jeu ji ñëw nii war répété sama maam day fóon sama yëre yi xool ndax damay tox wala may naan <laughs> xam nga mhm. macha allah mu yar ma ci yar bu man yar maam laa am nag parce que waaye dafa teel a génn waaw Lamine mi xam na li may wax ñii ñoo yar fii ci Medina euh, vraiment.

Guido maa ngi lay nuyu di la sal di la bégee quoi di la big moom mi ngi Amérique. waaw xam naa ni moom day seetaan Dak Dak Dak TV Médina quoi. Mm-hmm. waaw maa ngi lay nuyu kooku suma seex la suma xarit la mm-hmm. vraiment ñu bokk ndey ak baay quoi. Mm-hmm. waaw nga nekkoon nag Lemzo Diamono ak sa yeneen moroomu artiste mën nañ see mel ni ay ñoom Pape Diouf ay ñoom Alioune ak tant d'autres. waaw ah. jékki rek gis ne groupe ba dañoo dispersé wu. waaw xam lu waral loolu. waaw en fait en fait balaa Pape Diouf di ñëw. parce que naa yi sonn trop nag. balaa Pape ñëw. Alioune ñu ñoo fa nekkoon Alioune Nder Salam Diallo Madaba ak Fallou Dieng ñoo nekkoon après le Pape Diouf ñëw ñoom euh, Maymona Johnson ñoom euh, Ami Meng ñu après Cécile Niang amoon na benn femme bu tudd Cécile ñu bëri xamuñu ko mais waykat bu mag la woon ñoom ci lañ ñëw mais c'est vrai que euh, lu tëgg rek day tas yàlla moo ko dogal ah. man loolu laay wax ko dama naan yàlla moo dogal groupe bi après jaanoonu tas quoi mais mais aba aba mu tas bi ñoom ndeer bàyyee après Pape Diouf ñëw nañ. ñun am na lu ñu for ci weewu béy de. non li nga for ci weewu béy affaire Nescafé frappé la <laughs> non bul sonn xam man man man dama nit boo xam ne du ma parce que xam naa fi ngeen jëm mais loolu man duma ci wax xamul tax parce que en fait euh, groupe groupe groupe groupe Lemzo Jamono. Mhm. Nescafé frappé ñu bëri ma la ñu wax dafa moo tas group bi moo def nii mais man gawuma loolu parce que gisuma loolu. Mhm. man gawuma loolu parce que gisuma loolu parce que nekk naa fa.

parce que ñooñu dañu ma gëm. Cheikh Tidiane Tall ma tuddee Moussa kër gi. après nag Lamine Faye ñëw nag waaw teg ma au top quoi. ndeysaan waaw waaw ça se voit nag nit bu la jàppalee boo toogee da nga leen a war a. mais loolu mooy àdduna. dëgg la nga àdduna. Mhm. nit boo defee teraanga. Mhm. wax ko mhm. xam nga tey mën naa toog ne du ma wax damaa Fane Mbaye fay. mais pourquoi man moom moo tax ma dugg ci musique. nit ki boo ko bëggee da nga koy wax. bul am kersa wax ko. yow am na ku la inspiré. pour nga dugg ci métier bi. gars yi di filmer am ñu leen inspiré. Mhm. avant ñii xam nga ñu fi nekkoon. Mhm. Pape Gora. Mhm. ah Pape Gora moo moo def moo mosaan daw daw fii moom ngay gis après après Pape Gora bi mu kii euh, ñoom euh, kilo je théâtre. te rek daal di kocc ñoom xam nga. parce que ñooñu ñooñu woon. tey ba ay xale ñëw tey parce que loolu mooy àdduna. man damay sant yàlla nag joué naa papa. Jonas samay grand frère Jonas samay morom maa jox samay dom. maa ngi sant yàlla ah, mbiru yàlla la quoi mhm. mais aduna il faut nga reconnaissant Ko la jappalé. Dang koy wax parce que lolu do la wagn dara c'est très important Moussa Traoré ñu seetlu na yow fixé wo sa bépp sa bop ci ben groupe kese mën na ni musicien bu bu génné album wala ku ku la soxla rek <laughs> dang koy ñeu accompagner lan mo lan mo waral choix bobo? non euh, en fait choix bobo ci ñom la ñoom ñi bëgg ma leen di jouer xëy na li may def moi, leen moo sax moo intéressé parce que et puis ak euh, mayu là, parce que tey mon man ñëpp laay joué la ma ngi Viviane def ci 22 ans. yàgg na ngi super jamono. maa ngi joué Alioune Nder maa ngi joué Mayga maa ngi Salam Diallo ma ngi joué Sidi Diop. ay ay kasatu Wally Seck yu bëri joué naa ci. mais est du loolu nag moo tax ba fi mu ne nii euh, nu mu ko nu ñu koy waxee Moussa Traoré xaw a effacé wu accompagné ngay accompagné ñeneen ku la soxla dem wala nga dem joué ko tëggal ko ba nga bàyyi yow sa carrière. parce que da nga daan way mais gën na la gis nga. génnee vraiment noo xam noo xam day am benn boo xam ne il faut nga dellu ginnaaw tuuti. Mhm. pour xool fi nga tegal sa tànk. dëgg la parce que bu dee inspiration. am naa ko mhm. bu dee taasu mën naa ko yàlla mooy maye. bu dee sëbal maa ngi koy tëgg. yàlla mooy maye. maa ngi dem bay tëgg batterie te musuma ko jàng. musuma jàng batari mayu yàlla la. mais nag bu la yàlla jaglelee benn benn mbir ay nit soxla la. waaw nag il faut nga xaw a kii tuuti comme ça ba liggéey tuuti man xam maa ngi studio nii. maa ah. ngi studio. Taïda Pass di génn naa benn morceau yaa ngi préparé benn single ci ci gi màggal bële paase. tuddee ko Baye Fall moo neex. gis naa boobu laa. waaw yow sa single bi nga nekk di enregistré nii instant bi studio mën nga ñu see ñamal tuuti. Rëbë Zouzou <laughs> waaw rëbb zuzu laa mënul muñ Moussa Traoré rëbb zuzu mooy lan. gisoo boo koy wax surtout ñu ni muy kiiwee. waaw mooy lan lay fekk rëbb mais maanaam nit ki boo ko bëgg boo ko bëggee ko. waaw waaw doo ko ah, koy biisu. waaye da koy dëpp rek. boo dëppee biisu mu jox la lan. rëbb zuzu xanaa loolu neex na. <laughs> mën naa ne. voilà Moussa Traoré yaa ngi ci ñaata album. boo man nag euh, am na trois albums. ci marché bi mais benn bi la nit ñi xam. Hmm. muy ñoom rek fii.

bi mu demee ba ba moo def promotion bi ci la génn àddina moo tax dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaraa àjjana suma grand frère boobu ku baax ngi noonu mm-hmm. ku bëgg ay nawle musicien kooku su ma saa ñëw soirée bu ñuy jouer soirée day ñëw yéeg ci kaw scène bi baatare mi instrumentiste yëpp te xam leen baatare ay euro ay cent euro cent euro loolu moo tax xamu nit day fàttaliku démb quoi. Mm, mm. man man man j'aime bien di fàttaliku. lu baax lu ñuy def quoi. dëgg la dëgg la voilà léegi Moussa Traoré nag la dem nga Sorano benn wala ñaari yoon pourquoi pas Moussa Traoré au Grand Théâtre bëgguma lan ndax bëgguma Grand Théâtre ah wala parce que da nga ragal ni doo ko mën a feesal. waaw loolu waaw xam naa loolu ci la bokk. ah lu tax loolu. waaw yaa ko wax. ah mais man d' accord ma ci loolu. da nga boolem grand war a dem grand théâtre. léegi yow ay xale yu ndaw ñooy woote grand théâtre ko feesal. waaw léegi a def. waaw bàyyi naa ko sa loxo ak waa dak maintenant TV amuñu boo bëggee ñu organiser léegi léegi organiser Moussa Mara d' accord léegi. maa ngi wàcc suma 32 ans de carrière musicale. moo tax nag nga war koo defee. grand théâtre waaw waaw léegi dinaa ci ànd ak waa dak Medina TV. ñu def ko de Medina. Mhm. parce que man euh, def naa Sorano ñaari yoon. Mhm. suma anniversaire mhm. ñaari yoon mais gis nga man su ma defee dara waa naa ñëw je suis satisfait kontaan naa barke Seydina Mohamed man mu defee dara waa Medina kese kese nekk fa kontaan naa mu fees ak mu bañ a fees laa yemale mais su ma wootee Sorano nag waa Medina ñëw boo wootee Grand Théâtre jàpp ne noonu waa Medina di mobiliser woo xaaral bay gëli xaaral bay gëli mënoo ma kii de bu ma soroxo soroxo lank rek <laughs> comprendre nga parce que man man su def dara waa Medina ñëw gis nga koñ bii mm-hmm. fii yàgg naa fi toj de Medina fii dama naa ko ba léegi maire sax dañ naa waa Moussa yow lu xew loy xaar do defat dara may leen legui rek parce que man sumay def euh, ay événement damay bëgg ma sha allah ñëpp gis seen bop mhm. mu neex quoi. surtout du xaliss affaire du xaliss mhm. mais nit lo bëgg. dang ci dem ba jeex. amour bi da ngay wala da ngay da ngay bëgg mu mu mu neex nit ñi quoi. parce que man lool man loolu ba yalla bindé man lepp lu may dem rek dama ci dem ba jeex mu neex nit ñi man su nit ñi contané surtout wa Medina bu ñu contané contané naa. Lagi musa Traoré do ñëw fi ba dem nak te dooñu defal a acapella bu ndaw. Eh, ah déedéet du ma acapella ah si di nga acapella. mu ci àdduna ah lu tax. fayoo ma pourquoi pas. donc ma fay. eh musa Traoré affaire fay moom bu ko fi wax. ah déet fay affaire fay bu ko fi wax Moussa man xam xam lu ma la yëgal nag. loo may yeggal na nga réglé lan nga may yeggal réglé rek may ñu si ñom re bi rek. ñom metti ñom ñoom re fii ñoom re fee. ñoom ko wayatee wa fële. <laughs> kon kay jeex la yow kay wako ba pare ah. waaye may ñu si ñom re bi rek. waaw non léegi mm. damay bàyyi nga jël vidéo bi ça travaille bëgg lu. non xamul tax damaa damaa gëj a taasu léegi man tuma tax damaa xewi. voilà nga ni da ngaa bëgg Mbaye Dieye Faye dañ da nga koo faa loolu daf ñuy relancer ñu ñëw si question boo xamante ne bëggoon nañ la ko posé mooy dégg nañ ni Mbaye Dieye Faye Mbaye Dieye Faye moom nga ay mu ngi doon dox ay jéego pour yóbbu la super étoile euh, la moo tax loolu mujjul sotti. bon en fait euh, euh, bëgg Mbaye Dieye waaw dëgg la bëgg ko lool non mais doxuma pour super étoile. ok non non non parce que ay temps surtout dafa ma jëloon fii yëpp ma tourné tourné Europe man la yóbboon quoi parce que boobu dafa ma ñaari groupe yoo xam ne Youssou day bàyyi ñenn ñi fii yóbbu ñenn ñi quoi parce que moom da doon dem fële bu joué lundi mardi mercredi jeudi mu ñëw vendredi joué cosaan léegi nag man ci la mu wow fii man benn jour tëdd fii rek ménagère bi woo ma ne ma Youssou ma la soxla quoi parce que dafa bëgg dafa bëgg ànd ak yow tourné quoi ci laa dem noonu. mais non dox moom pour yóbbu Moussa Pétois la. léegi ma ñëwaat ci sama question bi ñu seetlu ci génération bu bees bi nag lañ ko gën a gisee euh, defante lañ koy waxee xaw ma tendance lañ koy waxee. da ngay gis sa morom bu génnee benn single euh, classe ci kenn ki lendemain bi kooku génnee benn moom tamit tontu moromam te yéen seen génération mën nañ ne loolu seetluwuñ ko ci woon yow ban message nga message nga leen ci mën a lancer loolu. dañ cee toll. loolu non ñun suñu toolu ngeen si te defoo leen noonu non suñu amoon na amoon na concurrence. Mhm. mais dafa saine concurrence dafa saine. Mhm. parce que concurrence du waxante lu ñaaw du defante lu ñaaw. Mhm. xam nga lan la. ci musique bu neex. dëgg la ak booy génnee li ñu nit ñu war a consommer. loolu mooy mais du du waxante lu ñaaw wala defante lu ñaaw. musique léegi c'est dommage que ne léegi nag dafa bëri. affaire yoo xam ni xam nga. man comprendre ma quoi. moo tax man euh, tout le temps. moo tax du may bëgg a am fenn noonu ma ñëpp laay joué. parce que man musicien laa man instrumentiste laa. te li may def nii. dama ko jàng. dama dem conservatoire encore une fois. def trois ans solfège pour xam musique les normes. moo tax man awma droit di di di maanaam di di far fii wala fële parce que man musicien laa ku ne ma Moussa Traoré joué ma dama lay joué. maanaam daal da ngaa tëddee njaaxaanaay. non mais mais parce que man loolu loolu loolu mooy suma rôle. dëgg la parce que man loolu ma ñëpp xamee. Mhm. tey kenn mënu la wax ne Moussa Traoré lii def naa 32 ans de carrière musicale. vraiment kenn déggu la ci dara moom. parce que xamul tax. Mhm. damay sant yàlla nag. Mhm. loolu ci mbiru yàlla la. ak sumay ñaanu waajur. ak niñ ma yaree. ba pare nag dëkk Medina nag juddoo Medina nag xam nga dëkk Medina dafa lu bëri loo xam ni doo ko tal de. waaw ñu tënk ko rek parce que temps bi moo ñu xaw a xoj Moussa Traoré. nga ni ah, kon temps bi xoj nañu waaw xoj nañu boobu ñaar moo ci des. yaa ngi waaj a def 32 euh, ans. lu bi. <laughs> Moussa Traoré arrête. yaa ngi a def 32 ans de carrière non ah. bàyyi la ngay def dañuy waxtaan. ah 32 ans de carrière. waaw tey musique lan la la defal lan la la apporté yow nga réaliser loo xamante ne ni c'est grâce à la musique. bon li musique ma defal. Mhm. amaat ci audience. maanaam audience boo déggee audience mooy. bunt bu ma dugg bu mu fëgg ñu ubbil ma fu ma dem ñu ne ah Moussa Traoré ngi nii. Mm. musique defal na ma loolu. Mm. mais musique may gu ma xaalis. may la xaalis 32 ans rek non xam euh, bu fekkoon ni li may def ñu ngi may fay lu ko jar moo xam tey benn secret ci man. sax xam ni man musuma juel woykat ak koo mënti doon. Mm-hmm. ne la fay ma temps ba léegi nii. Mm. man damay pare rek loo ma jox ma dem. waaw kon kay doo si gaaw am xaalis. waaw non xamul tax xam nga euh, Sénégal dafa ne dëkk boo xam ni tey boo ne diw fay ma mu ne voilà xool ko. te moom tey mais la da nga koy bàyyi métier yëpp taamu loolu kon boo a fay. waxaat dañu waxtaan rek mooy dëgg. mooy yoon. mais nit ki même bu la laajul yow war nga xam kii ak xam ak moom li muy jar yelleefam. comprendre la. Mm-hmm. man nag gis nga du may faral dem émission. parce que man lépp lu ma la wax dëgg la ci man. Mm-hmm. man du ma tricher du ma wax lu ma gëmul lépp lu ma la wax ni moom xam nga ni dëgg la ci man mais euh, amaguma ci xaalis parce que man musique nee naa moom. balaa may bàyyi ba naa ci am kër bu rafet. Moussa Traoré. waaw dégg nga 32 ans nga def ko si amoo xaalis ba heure bi ma ne doot di ko ah, mooy maye ah, ma defee ci métier 32 ans aw ma ci ma bàyyi ko seeti leen. du ma sa xaar xam nga day day fekk bi rek. si bëgg naa ko kay ah, am xaalis naa ne kon si yow. yu yu sunduur ñaata la def doo ko doo ko nekk milliardaire doo ko am li am yëpp xam nga ko. xaw ma ko de. ah da nga nekk da xale. noo déglu da nga nekk xale gis nga tey métier te raax ba dafa gis nga musique day fay musique day fay gis nga musique tey moo li ma wax rek xam nga 32 ans te moonte tey maa ngi sant yàlla de amul ma kenn bor kenn du ma def ci medd bi ba paña ma xam nga loolu sutura yàlla la mm-hmm. kon loolu am naa mm-hmm. mais boo déggee am ma xaalis maanaam amaguma kër bu rafet am naa oto maa ngi am kër bi ma bi ma jogee ma jógee am oto yàggul parce que man man yu bari gëwuma ko tey am na yu bëri yoo xam ne li di gaa yi def su ma ko defoon ma am ko. lan la gars yi di def. parce que tey musique am na ñoo xam ne dañuy dem ci waykat bi di ko raawu di ko sibooru du ma def loolu. xaw ma loolu sa bopp maanaam da nga addiñ daal non du question gëm sa non gëm sa ci la bokk. mais gis nga nit boo xamul dara doo ko def man waykat boo ñëw sama kër du ma dem sa kër man dama gëm suma bopp. et puis gis nga àdduna ay ne bu ñu ànd dañuy dañuy waxante dëgg dañuy ànd ci dëgg man loolu laa gëm quoi. dëgg la. man lii gars yi du ma ko def honnêtement. Ah, gars yi parce que tey parce que tey jii non non non non yoo xam nga ni ma la wax quoi. fii loolu fi am day ministère bu dem kër waykat bi toog boo ñibbi mu jël benn vingt mille francs may la nga paas parce bu ëllëgee boo leen xulóowee. Mm. dara mën a xool ko moo la ñëw sama kër di wax. man kenn ma xaar ci loolu. dëgg la tey du ma dem ci parking di leb oto. Mm-hmm. pour dawal pour lan noo kii am na sama rafet bii da ko leb pourquoi. te maa ngi suma njaboot ñu ngi jàng école dama war a fay dama war a dundal moo damay sant yàlla yàlla may suturaal je suis ni ma mel nii maa ngi sant yàlla bu baax te di ñaan yàlla nag yàlla ma yàlla jàppale may ma xéwal incha allah maa ñaan sama bopp di nga sa xol mais macha allah parce que mm-hmm, mm-hmm. xaw naa sax suma xol bi xaw a jóg nii mais question bi la quoi parce que xam nga di nga di nga nit mm-hmm. mu foog nii yow dara nga ko toppee daal waaw munoo wala munoo ko bàyyi wala xam nga yow boo bàyyi foofu non non non man moom. Moussa Tall dafa mel daa am koy gaaruwaale. non man yow ba man fan la. ah eh man gaaruwaale. Mm. yow xam nga kon bu fekkoon may gaaru kon bu jeeg ñëpp di. ah kon ba man maa ngi jeeg ñëpp di. moo paree daal dinañ toog ma yow hors antenne. xam nga kan la gaaruwaale ne ma kan. la yow. <laughs> nga nekk nag artiste bu polyvalent. di way di taasu di fecc di tëgg sabar léegi nag yamatoo ci tëgg sabar yaa ngi joué batterie ak yeneen instrument lan moo waral loolu. li waral loolu mooy li ma sànq rek mayu yàlla mais li indi euh, ma jóge ci sabar dem ci batterie loolu depuis euh, Lemzo jamono la mais ki gën a yokk tax ma tëgg batterie Youssou nduur la ok waaw nduur moo tax ma joué batterie parce que benn jour ma ma gis mooy fawantu xam nga dama sopp mm-hmm. may fontu nii mu wow dama eh kaay yow ma ñëw mu ne ma bu xam nga mën nga tëgg sabar ba ñëpp xam ne mën nga tëgg sabar gis naa da ngay joué batterie del mm-hmm. man maa maa la maa la ubbi mm-hmm. xam nga temps yi lépp sa affaire yi mu ne ma eh ma fontoo moom nag visionnaire la Youssou Ndour dëgg la vrai visionnaire la moom moo tax nag moo gën a yokk tax ma joué batterie quoi moo tax sax fu ma gisee ne ma ah li ma la waxoon ma ne ko way ci visionnaire quoi macha allah comme nu ma la ko waxee rek temps moo ñu xaw a xoj mm-hmm. waxtaan bi neex na trop doyaluñu nag si yow ndax yow euh, am na yu bëree bëree bëri yoo xam ne war nañ ci mën a waxtaan mm-hmm. mais nag comme temps bi dañoo tënk dañuy mm-hmm. tàggatoo toog suñu mbokk internautes yi rek jox leen rendez-vous très prochainement incha allah looy tëjee waaw macha allah di kontaan ci euh, ñëw bi ma ñëw fii Dak Médina TV macha allah tour bi wuyu na borom parce que waa Médina kese ñoo fi liggéey te ñun Médina dañoo nekk euh, nit ñoo xam ni dañoo gëm suñu bopp. xam ñu ñooy ñan. Mhm. xam li ñuy jar ku ñu faale ñu faale la ku ñu faalewul duñu la faale. Médina nag ma loo moo nekk ci Médina ñun dañu gëm suñu bopp. Mhm. ba pare bokk ndey ak bàyyi nag. Mhm. kon di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñi nga xam ni nag fa sama bët xonkee dama leen di gis quoi dañ may jàppale benn. Cheikh Ahmed Tidiane Ba Messi kooku sama xarit laa chéri Lissa Ndoye parce que saa yi ma organisé dara daf ciy jàpp ba mu mat. waaw moom lu dama koy gërëm bu baax a baax. di gërëm Seydou Gueye moom it da ciy jàpp. am na ñu fi nekk ñoo xam ni dama leen di organ damay yoon yónnee leen leer duñ ma faale mais man ba ma faale lu ma la faale. comme kan du ma tudd tur xam nañ seen bopp non mais xam nga tey su ma gërëmee ñaari nit. xoolal yow yow su ma gërëm ñaari xool <laughs> voilà mais dama lay wax rek parce que man no dama lay expliquer nga la man je comme ça mhm. man nii la man man nii la ma yàlla bindee Baye Fall laa quoi ñi ma jàppale ñëpp ki ma jàppale daal xam nga tudd naa la ak koo xam ni bi ma ko xamee yàggul yàgg na yàggul muy Lat Diop mm. Lat Diop kooku macha allah euh, ku baax la mm-hmm. parce que dafa ma gis ne Moussa mais mais mais ana ana wàll sa jamono. ba pare fan yi damay jeeg may ga may ga maa ngi koy gërëm. suma xarit boobu. parce que moom yàgg nañ. ci lem Lemzo jamono. di gërëm Lamine fay di ko ñaanal yàlla wér ak wér la di ñaanal Père Cheikh Tidiane yàlla na ko yàlla xaare àjjana. amiin di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm waa Medina. Mhm. encore une fois di gërëm suma famille. Mhm. suma famille bi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay sumay doomu baay man am ay doomu baay ay ay ñu ñu ma bokk ndey baay la am. parce que sumay rakk yi dañ ma bëgg. te samay doom bàyyi lañ de mais ma bëgg. respecté ma lool. moo tax gis nga ku ne doom bàyyi neexul. Mhm. daa fekk bokkoo bokkoo ñi ma bokkal. <laughs> dëgg <laughs> ah? di gërëm ñëpp ah. Mhm. di gërëm euh, su famille jabar mhm. sumay doom. mes enfants je vous adore. ma femme je t'aime <laughs> kontaan ci ñëpp. di wax waa diaspora bi. Dak Médina TV mi ngi nii yéen a ko moom. pour ñëpp la ah, du pour Médina kese ah. àdduna la àdduna la quoi ngeen abonné. te xam ne xoolal ay affaire yu bëri yu mu ci biir parce que làmb jeeg y a des affaires yu bëri ah man sax damay ñëw ah. allah am na émission may waay def ko ñu

Fatima incha allah. merci mais, beaucoup kii mooy Fatima <laughs> gars yi ngi nii macha allah voilà ravissante belle comme comme comme dab quoi booy mi naa la de maa la loolu bàyyi leen jàmbur nag.